seet si ki nga xamante ni jamono ji moo ci réseaux sociaux yi di ki nga xamante ni moom mooy Karamba laataa ñuy sori rek dañu koy bàyyi mu nuyoo ñuy def rek li nga xamante ni moom mooy laaj ak tontu yi Karamba ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi ziar di nuyu ñëpp di la jox sa wàcc waaye di nuyu àdduna di nuyu peuple senegal yëpp mhm. bàyyiwuma kenn yaa xam si hôpital nga ne yaa xam foo mënti nekk si àdduna mhm. ñëpp maa ngi leen di nuyu ku si nekk maa ngi lay jox sa wàcc jox la loxo di la nuyu. Euh, suñu laaj bu jëkk euh, dafay dem rek ci li nga xamante ne moom moo xew démb boo toppee actualité bi gis nañ ni démb euh, Sénégal dafa doon discuter match bu njëkk ci li nga xamante ne moom mooy coupe du monde Qatar 2022. loolu bi mu amee gis nañu Sénégal enregistré la aussi défaite am bu njëkk tey jii coow li bëri na ñu nekk tudd nañ la ci aussi mais duñ ci teel a xuus tey jii jàngat bi nga def ci li nga xamante ne moom mooy match bi tey boo ñu doon wax lan nga ñu ci mën a wax. match ban. bi am démb. match démb bi. Mhm. waaw loolu noonu la mënoon a demee rek. parce que kuy bëre ku ne yaay daanu. football amul ku koy def te duñ la gagné. amul sëriñ bu yor équipe te duñ la gagné. amul entreneur bu yor équipe te duñ la dóor loolu ak football ñoo ànd loolu laay wax si loolu. waaw mm-hmm. gisoo si daraay mystique aussi. mystique mystique xam nga loolu du jóg bi. mu mm-hmm. see jóg mystique mosul jóg si bi. mais mystique bi dañu wax ne Karamba si boppam moom moo def le tout. Mm-hmm. bañ gagné Sénégal parce que moom moo toogoon carrément si télé bi Sénégal yëpp mu ni moo ko Hollande ñàkk match bi match bi bu ko ñàkkulee nañ jël sama bakkan. waaw bu dee Karamba moo def loolu xanaa kon tey Sénégal yenn ñiy toog di gis deegu ñëwagul wax ko kooku dee xanaa ñoom ñoo rey kooku. loolu moo loolu mooy question man sama question bi noonu laa koy tontoo. da nga bëgg weddi ne waxoo kàddu yooyu. non déggoo li ma la wax bu dee nit lu mu wax moom moo def loolu. kon ñaata nit ñoo ñaata criminel ñoo nekk Sénégal ñaata nit ñoo génn wax lu war a xew ko war a dee kooku dee. ba si ay kilifa xanaa kon ñoom ñoo rey kooku man may sénégalais man sénégal jaral ma lu nekk sénégal jaral ma ma jël sama xaalis xaw ma nu mu toll si àdduna man di sacrifier sama bopp ngir sénégal man may jël sama ñàkk te mosumaa xaar kenn si senegal man du ma jël kàmbu gas ko gas ko ba mu ba mu bañ naan jeex naam jeexul ma koy suulaat noonoo duma ko def gis nañ aussi eh, gars yi yóbbu nañ la baax gannaaw ab vidéo boo xamante ni jotoon nga ko def eh, jot nañ dégg sax ci ay leeral nga ne vidéo boobu nekk na loo xamante ne lu yàgg la eh, lan moo waral nga jàpp ni moo tax ñu kole ko ak contexte démb bi. lan moo tax. ñu ñu ñu génne ko comme si que ni démb la vidéo bi si nga ko def aussi. <laughs> non non posé waatal question ma déglu jànguma français mais xam naa tubaab nee na avant de parler il faut réfléchir ah nest pas. question bi question maanaam temps match bi dafa am ay dañ la baar. Mhm. Sénégal leen di karamba dañ ko baar te yow dégg naa wax nga ni dañ jël beneen match jël sa vidéo teg ko mhm. pour Sénégal jàpp ne karamba dañ ko baar alors ko kenn baar la lu nga wax du noonu. waaw parce que man man loolu warul jaaxal sénégalais yi mhm. ñaata match laa génn du benn du ñaar du ñett du ñeent. bu ma si génn ak li may wax àdduna mënul du neex parce que samedi am na lëndi dimanche mardi mercredi te ku si nekk li ngay añe suba woo xaful du bokk ak li ngay añee parce que yàgg naa génn ne leen deux balles dafa am yàgg naa génn ne leen trois bi dafa am génnaat naa waxaat leen trois bi dafa am jëm ñaajo man leen benn bal la dafa am yow xam nga si dara kon tey li daan wax bi yooyu bu génnee na la defet la defet la non non loolu kese la. Mhm. am déet nañu waxante dëgg loolu kese la. mais Canabasse le problème bi mooy du yow kese yaa fi njëkk nekk sëñ Sénégal. Mhm. Sénégal bëri woon ay seetkat yu bëri yu fi fi nekkoon dina wax si wàllu làmb di wax si wàllu football chaque jour ñu joxe même résultat bi Sénégal yi am si ñoom confiance ñu dem a si am tuuti si ñoom confiance parce que lu ñu wax dootu am moo tax ñu yaakaar ne yow tamit bu neen la baar. man man bi may nekk sama bitik marché laa commencé di wax si équipe nationale football li may wax ni mbuur ñu bëri dinañ ma seetaan bi may nekk sama bitik di commerce le Sénégal di football ma ciy wax si match di leen dig ay bii di ko def loolu kañ la woon depuis Coupe d'Afrique 2019 boobu maa ngi liggéey liggéey si affaire di nekk marché musuma see wax lu dëñ depuis 2019 su ma juumul Coupe d'Afrique 2019 la woon si lañ ma commencé di topp di ma topp di ma topp di ma topp di ma topp di ma topp pour yóbbu ma vaar lu ma wax comme maanaam gis nga tey Sénégal bëgguñu champion ëllëg ñu jàppale la de mais duñ la jàppale ñu ngi xool nuñ la fen loowee man nee naa leen néew ma du de parce que yàlla kese mooy wax lu dul deñ man taalibe sëñ Fallou laa yàlla kese mooy wax lu dul deñ mais nit ku lay wax ngay teg sa bët dee ko bàyyi xel parce que yàlla mooy xool nit ku nekk lu ko neex moom may ko ko man depuis Coupe d'Afrique 2019 laa commencé di wax si football ba coupe d'Afrique bi li ma ci wax benn sëriñ waxu ko ci ba qualification kenn waxu ko ci ba première match bii nii kenn waxu ko ci loolu bu yéen la jommal mais lu ñàkk fayda la si man comme élève buy soog a dugg see i la mel si man mm, voilà d'accord am na euh, beneen laaj aussi boo xamante ne bëgg nañ la ko laaj euh, gis nañ ki nga xamante ne moom mooy Adamo aussi def na ci après match bi euh, nee na yow bu fekkente ne da nga jug pour jàppale équipe bu Sénégal mm. Euh, waroo xaar ku la wax dara parce que yow xaritam nga aussi te loolu am na sañ-sañ wax la ko danga war a jël vol dem Qatar jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy gaynde yi loolu lan nga ci mën a wax. waaw loolu mën na nekk tey ku yàgg jël sa alal di ko def di ko financer pour Sénégal am ndam ku yàgg dagg sa loxo tuur sa deret pour Sénégal mën a am ndam kooku du ne du jël xaalisam pour dem pour jàppale Sénégal mais Qatar du Sénégal. yaa ngi may dégg tey boo jógee woon fii dem Qatar boo àggee nan ñoo lay dalal fooy dal yow xamoo Qatar mm-hmm. est-ce que dégg nga fi may waxee fan ngay dal tey boo waree def loo xamante ne tey su côté joueur yi war nga war see gis nit pour wax ak moom wax ko leen affaire wala nan nga koy defee tey boo demee dañ lay xëcc ne rakaay yi mm-hmm. parce que amaana karambaam yi dañ koo fay pour mu ñëw fii pour yàq mm-hmm. te karambaa yàq taxu kaa jóg moom defar kese moo ko tax a jóg lu mel noonu moo tax ma tey si mais du xaalis tey bu doon xaalis ak xaalis ak xaalis ak xaalis man laaj Sénégalais yi millions yu bari barke sëriñ Fallou Mbacké ki fi jóge ki fi jóge sànq président moo ko yónnee si man président Macky sàll moo ko yónnee si man. man li kon da ngay defal Macky Sall ay affaire déedéet defaluma ko dara. defaluma ko dara mais am na yëg-yëg kam pop ba dafa bëgg lu neex peuple sénégalais yi moom si coobare boobu la ma oowee. mais du dem karamba da koy lim musuma kaa defal dara. waaw mais bu fekkee karamba maanaam lu muy woote mu ngi si moom est ce que jar na muy dem Qatar est ce que maanaam mënul toog fu mu toog def lu muy def Sénégal am ndam est jar na dem Qatar. léegi lu gën a dee xam nga lu ñu ma wax tey jet privé tey dañu woon du fanaan fii tey barki Seydina Muhammad billaahi kam gaa yi naan karamba daa bëgg a dem karamba nii karamba fu ko neex affaire bi du dem affaire bi yëg la. tey biñ ma oowee ne ma jet privé barke Serigne Fallou Mbacke billaahi wallaahi tallaahi ak ministre bi direct jet privé ak ñi nga bëgg a àndal nga dem man leen dew ma. ban ministre la Yankoba Diattara. barke Serigne Fallou Mbacke billaahi wallaahi tallaahi lii may wax nii sax waruma ko wax mais dama koy leeral pour peuple Sénégal man kenn gënu maa bëgg Sénégal Karamba buy wax du ak bëgg a dem moo tax muy wax. Karamba buy wax ak yëg moo tax muy wax tey su ma neexoon lu ma neex si xaalis ma laaj ko. su ma neexoon jet privé laay dugg guddi guddi Qatar laay fanaani te waxoon naa leen ko Idali waxoon naa la ko fii barki Serigne fàllu Mbacké mais yooyu yëpp jaru ko man sénégalais laa man sénégalais laa mënuma dara mais yàlla bi nga xamante ni mu ëpp doole si àdduna foo natt dooleem romb na ko billaay wallaay tallaay foo nattu doole yàlla suñu borom yàlla dooleem romb na ko Karamba li muy doxe nii du man bu leen xool sama bopp bi ma tentir ni may doxe nii du man yàlla la nit boo ko nangulu li ko yàlla may gëmatoo yàlla parce que feebaru hôpital sax bu la dalee nga yaakaar dañ laa jàpp si mystique gëmatoo yàlla nit da ngeen koy nangul li ko yàlla may parce que gëmoo sa bopp man nii lay doxe léegi léegi koo dem bu ñu paree sama Sénégal bi fu mu toll nii moom euh, loolu jeex na tàkk am nañ defet am nañ defet àddina mënul dox bañ gañe Hollande ren boog ñu jëm si match boo xam ne mooy suñu deuxième match muy contre Qatar incha allah ñu ne ko football vendredi le 24 incha allah léegi fu mu toll nii Karamba la lañ mën a xaar si moom si match boobu Sénégal day day niir wala ñu koy dóoraat comme ni ko waxee. <laughs> yooyu ñi dama si wax. da nga ragal sénégalais. non dama ragal sénégalais yi non non dama xam ni fan yi li ma si am nii. non dama ne man dootuma wax si ay. ay kii yooyu instant bi li ma décidé daal mm-hmm. mooy. ñu xool nuñ mën a def jàppale Sénégal pour mu am ndam. mais benn question rek benn réponse rek lañ soxla ndax Sénégal day gañe waaw wala déet. loolu yàlla moo ko yor. su ma koy wax kenn du ma ko laaj man duma ma bu ñuy laaj muy wax su may wax si sama àll laay waxee te sama àll su ma si waxee ñi ma laa ñi ma laa waatal tegal la sama bakken bii. man du ma sëriñ boo xam ni comme journaliste day ñëw proposer la wax loola nga fen man lu ma la wax dama siy waat teg sama bakken mhm. voilà. da nga yàlla moo Karamba Sénégal yaa tàmbal match bi ñëw nga ni temps la ñuy dóor yaa bii ah, non bii damaa wax dëkk bi bëgg a tas waaw dafa nak rek dëkk bi bëgg a tas parce damaa wax dëkk bi bëgg a tas ku nekk naan Karamba xoolal ay nit commencé ñi bëgg la noonoo fii ñi bëgg la kii moo tax bëggatuma wax mais parce que li nga wax moo arrangé Sénégal mais tey euh, bu fekkee ni mais daan naa wax leen arange waaw maa ngi ñëw sama question dama lay laaj di daan naa wax leen arrangé waaw kon nañ xam ne jour boobu noonu yàpp lañ toggoon démb ñu togg mbaxal Sénégal noonu lay doxee. léegi lañ bëgg xam na samedi ak dimanche la. léegi lañ bëgg xam samedi ak dimanche la mooy xew mooy maanaam vendredi bii di ñëw Karamba bu fekkee lu nga mënoon mënoo toog da ngay wax Sénégal yi ne carrément man kat bi ñëw xaw ma si dara mais bu fekkee mënoo létt Sénégal moo leen firi kenn xamul tuuti Karamba ban Karamba la te yaa waxoon jamais baar lu nga bind sa yére. an seeni mees ngay bañ baar la. an pour ma létt leen. mees moom léttu ani mees yi ma leen di létt yéen Sénégalais yow yaa ni moom ma létt sénégalais yi war a ma firi leen an seen an seeni mees loolu dama ko def defati ko defati ko match bii xam nga lu ma si gën a gis du nekkuma si sax di wax ay nii lu ma ci man dinaa ko def ngir Sénégal am ndam yàlla moom moom ndam mhm. mais du ma fi nekk naan laan ay ay lii la ay lii xëy ga ay génnewaat ko mu indilaatal ma ay noon indilaatal ma ay coow jaral jar dara jaralu ma ko mhm. parce que man damay liggéey sama liggéey du ay football moom ma koy yàqal football lu ñàkk fayda si li may def du may concentré au cent pour cent mais lu ma man la yàlla nag moo moom ndam man moomu ma ndam yàlla mooy xool ku ko neex mu may la ndam yàlla mooy xool ku ko neex mu xañ la ndam te bu la yàlla xañee ndam dangay jàpp ne daan nga am ndam nga jël ndam loolu taf ko si loolu boo ko defee li nga muñ nga dabuwaat ndam pour am ko joué yoo xam ne tegal nañ la ñaata lañ lay jox man leen bu ma kenn jox dara pour mu leer si nopp sénégalais yi ñaata lañ may jox man leen bu ma kenn jox dara jag privé man leen déedéet ñun luñ ci mën dinañ ko def si kanam ndam li yàlla moo ko yor mais Karamba yàlla bu yàlla tas yaakaaru sénégalais yi parce que ñun ñii ñëpp kenn xamu si ku si nekk di nga àgg sa kër am déet Karamba xamul ndax dina fekk match bi am déet yàgg ngeen a gis nit def émission daanu si émission de am na wala amul kon xamuñu luy xew suba suñu amee ndigal li léegi ñu wax ñu ko suñu nopp bii nii ma toog nii ma wax ko man ay jinne laay waxe waxewu ma ay ay yaama neex ay yaa war a wax lii ay waxuma mais dafa am vidéo yi gis léegi nga ne Sénégal lu mu match lu mu tàng-tàng di ñam wax benn bii man am naa ko yéene pour Sénégal Sénégal 1-0 la ñu dóor. boo la am naa yéene man Karamba am naa yéene yëngale Sénégal si mbaal naa yéene bi quoi yéene bi. am na no waxuma la benn de waxuma la benn de pour muy leer nee naa la loolu dootuma ci wax déggoo ma de dootuma wax si ay benn ay ñaar ay defet yooyu dootuma ci wax li may wax lan am naa yéene. comme yéene bi bépp sénégalais am comme man en tant que doomu sénégalais yéene bi ngeen am yéene boobu laa am pour Sénégal am ndam. léegi foo am yéene am yéene yóbbu Sénégal ba demi-finale wala finale wala ñu génn poul loolu yàlla moo ko yor. mais fii lépp yàlla la soo gisee bëggatuma xuus si yenn affaires yi. Mhm. parce que man su may wax man tiituma ragaluma li may wax mais samay nit laay sonal te ñoom laay suuraale jam ñi nekk sama ginnaaw. su ma waxee dañuy tiit comme ñi ne leen toog ñenn ñi sax dañuy dox si mbedd di si xeex yu demee noonu comme maanaam loolu lay sóoraale mais Karamba amul lu muy tiit lii addiyee sëñ Fallou la. d'accord ku mburóodi. d'accord am na beneen point boo xamante ne bëgg nañu wax ci aussi parce que gis nañ benn video boo xamante ne mu ngi circuler ci biir réseaux sociaux yi tiktoker bi nga xamante ne moom mooy Cheikh moo ko def di ci wax ne euh, euh, euh, waratoo wax ci wàllum mystique ci lu ñeel équipe nationale bu Sénégal mhm. ndaxte xam na la bu baax te doomu mbuur la comme yow te bu ko boo continuer aussi di wax ci li nga xamante ne moom mooy équipe nationale bi dina la weer loolu lan nga ci mën a wax. kooku mënumaa teree wax ci équipe nationale bi mhm. kooku tiktokeuram mu yor noonu. sama sama sama sa ay ay viewam si samay vidéo yu may faj la yéegee wala déggoo li ma lay wax may faj di xandal jinne yi mu koy filmer àdduna di ko seetaan si téléphone am loolu moo yéegal TikTok am bi muy jóge fii di dem Espagne amul téléphone barki salaatu téléphone bi mu yóbbaale Espagne maa ko jënd. xamante woon ngeen aussi. déggoo li ma la wax musuma ànd ak moom fii nii Mbuur ñii ñëpp kii samay rakk la ñoo bokk ndey ak baay ñun ñoo bokk koñ bu ñu dëkk fii mais dari ab koñ boo si juddoo. mel neen nañ am na ñoo xam ne seen xol du neex xam nga tey nga doon xale juddoondoo ak ñoom di war ay oto 12 million ay oto 13 millions di tabax say kër di kuule yor say millions di salteel waykat yi di la way ngay baatare ak karamba xam nga dafa bëri kele fu mu dem da koy toj xam nga yooyu day def seen xol yi maanaam seen xol yi du neex xam nga li ma lox dañuy xool luñ la yàqale xam nga kooku di wax noonu bu doon nit ku baax mu ne karambaakat kam bu dul dara man maag magam ñooy ànd moom xamaluma dara lu ma xamal na ko saam nee naa leen sama buun gi ku ko yor sax saam ko si internet bi noonu laa ko waxee maa pour man man lay waxal yaa ngi may dégg sama tuun gi ku ko yor saam si internet bi yoruñu sama dara boo gisee boo gisee bëgguma sax jël ay avion di dem wala benn affaire comme genre yooyu la mm-hmm. man yàlla teral na ma lu ma mën a yóbbu fu ma neex si àdduna bi mm-hmm. yàlla may na ma ko si loo xamante ni football mayuma ko damay liggéey di faj ay doomu aadama lan la wax léeg woon ne ñooñ li ñuy wax du dëgg ñu ne karamba mënul faj kenn ñu ne karamba mënul faj kenn di loolu lañ wax ñu ne karambaa mënul faj kenn te karamba chaque jour këram Italie ñaata yoon ngay ñëw sama kër ñaata personne la lan ak lan laay fajee en direct léegi noonu la ñuy def di lor sénégalais yi ñi nga xamante ne tey dañu waroon ñëw sax pour karamba dimbali leen dootuñu ñëw léegi dañuy dem si ñeneen ñu nax leen loolu doxalul réew Sénégal dañu war a bàyyi yooyu ñuy seetaan loolu dañuy yàqal ñenn ñi Karamba li muy def da koy filmer en sama kër bañ na ko ba ñi fa bëgg a ñëw ñu bëri li leen fay tëree ñëw lan la parce que nee nañ Karamba liggéeyam da koy filmer te boo fa demee tam nga feeñ si vidéo yi maanaam kiy def lu leer la kon awma lu may tirise man li may def dama koo man jànguma ko tarbiwuma ko benn sëriñ joxuma ko mosuma ni sëriñ bii jox ma sekkere xam-xam bii te manuma tari kii am mayata voilà Sénégal ma ngi ci euh, moment yoo xamante ni euh, moment yu compliqué la ci football mondial ndax deuxième match bi bu ko pertee dina demee neneen ndax yow booy jàppalee Sénégal dafay jar nga déplacé wu dem ba Qatar pour mën a jàppale Sénégal ci match bi ñu génn wala fii nga koy defee loolu laa man fu ma toog mën naa fa liggéey football. waaw donc lan démb ku la wax ma Sénégal. non demee laa doon jàppale wu Sénégal. parce yaa génn carrément ne bi. Sénégal dañ koy dóor. lu tax jàppale wu ma Sénégal mais loolu loolu loolu du dara comme léegi kon kon Sénégal na gaa yi bàyyi ñuy wax si internet bi léegi parce que gars yi li ñu xam kuy fen après nga fen ñu yóbbu la vaar nga wax dëgg ñu bëgg la lëmbe pour lan. loolu sama géemu bopp la loolu du sa part awma lu ma leen ciy wax lii ngeen def nii sax daa bari leer na. ok d' euh, ba tey ci euh, question bi mu wax ci la ñuy rebondir parce que euh, gis nañ la ab vidéo boo xam ne mu ngi circuler xamuñu ndax yow la wala sa ñi ngi àndal la ñu jël ay millions teg ko ci suuf ak yooyu ne da nga gañe pari foot nee nañ bu njëkk ba gañe woon nga 16 millions bu ci toppaat 56 millions vidéo bi mu génnee sénégalais ñu bëri am nañ ci ay gis-gis yu ndax ndaxte am na ñoo xamante ne dañ ne faux billet la am na ñoo xam ne dañ ne luxus la aussi lan nga ci mën a wax alma du ma dagg live bi dinaa duma ma dagg live sama gaa yi gis ngeen 5000 personnes ñoo may seetaan sama téléphone du ma dagg live bi de 5000 personnes ñoo may seetaan sama téléphone xaaral ma woon la seeni bët ngeen yor yéen yéen ko moom boo gisee duma ma joxe coupon parce que man damay perte taxawal rek ma woon la léegi mu leer. déggu li ma la wax ni may joué di gagné noonu laay joué naar bi di perte mais lu ma ne la maa ko gagné maa ko gagné. kon am nañ possibilité nga wan ñu fi nga gagné xaalis boobu yëpp. defal ndànk rek moom laa bëgg a génne ni Alioune demee ni bëgg ay werante bëgg lu leer rek garamba na fee day bañ capturé woon naa ko fii ñun hmm? ñëpp yor nañ ko non mu ngi nii dama lay won xoola fii coupon bii nii ña lii lii ñaata la. 8 millions. 8 gis nga ko. Mhm. xaaral dama lay wonaat après boo leen yoree machine à calcul ngeen calcul xoola coupon bi ci kaw lii ñaata la. 33 millions 320 mille 805. 33. millions gis nga ko. dama lay woon benn par benn xaaral xaaral rek bii lum jàpp douze millions douze millions deux cent si si marché bi Marseille bi bii boobu ngay dugg quatre-vingt quatre-vingt-seizième boobu sama bal la sama bal bal boobu sama bal la waaw waaw 7 millions gis nga ko pour man won naa la ko bii 7 millions. 7 millions. 200 291 mille 338. match Juventus Lazio 3-0 pour Juventus. yii yëpp si benn fan la dama lay won rek bii naar bi daf ma see dagg parce que match bi amul cinq millions la waroon a jàpp gis nga li ma si jox. mu jox la 800 noo kii 800 mille 824 mille. xaaral pareegu ma de taxawal rek yow bul yàkkamti lii lan la damay la. taxawal lii la la. 13 million 437 mille 451. 13 millions te xoola coupon bi suufam ni lu mu jàpp la jàpp téyel ñu dem comme Sénégal dañoo bëgg werante lu ne fàng la kenn xoola bii lu mu jàpp 4 lan. 4 millions 30 40 euh, 4 millions ci football. waaw leer na non leer na nañ. eggaguma ah. ah, la la lii non non 1 million 900. dama lay won rek taxawal rek dama koy won lépp. non non leeragul de day gën a leer. karambaalu leer la bëgg lii ñaata la ci ci bi. 37 millions 900 3 millions 3 millions. 794 195. bii ñaata la 2 millions. 824 190. xam nga dama ni samedi dama dàq 8 millions kii xam nga nu ñu koy wax sax 9 millions. xoola gis nga ko nii. dama lay wan lii lan la. non non xoola lii ñaata la lii lan. non c'est bon 6 millions. non dama lay wan wàññil karamba li muy da kam boo ko waxee dañ naan dangay fen. man kon xam du ay affaire fu bëgg a dem fenn dama lay woon rek. bi 6 millions la 518 257. te pareegu ma de lii ñaata 3 millions. bi 3 millions 224 mille 340. caramba c'est bon leer na. lii ñaata la 16 euh, millions non non temps bi mayuñu ko leer na nañ baax na c'est bon. gëm nañ la léegi gëm nañ la c'est bon. 16 millions yaa ngi nii avant avant 56 millions yi gars yi doon wax ay 80. 16 millions yaa ngi nii lii ñaata la. millions 382 mille à 799. 16 millions si XBET le roi du ballon. Mm-hmm. yow la. man maa dàq naar bi si 3 3 semaines loo xamante ni ñu ngi naan ay 87 millions. 87 mm-hmm. millions ëpp na su ko ëppul si 3 semaines. Mm-hmm. li tax ma koy wax téléphone baa ngi nii. d'accord kon tey jii Karamba mën nañ ne alalam ci Paris foot la ko jëlee. sama alal jëlewu ko si Paris foot xaaral ma delloowaat sama kii bi. waaw waaw. waa live maa ngi de. oh live bi dagg na junior xoolaatal live bi. am. Euh, léegi yëpp maanaam xaaral xaaral. non indi fii la ma xool. li yëpp bëgg leeral Sénégalais mhm. li ngay wax dëgg la. non xam nga tey pour nga xam ni sénégalais yi niñ ñu soxoree ba si ba si boo yooyu ngay tudd noonu. li mhm. lay won ne dañoo soxor lii da siy jàngat leçon. Mhm. lii confirmation la pour nga jàng si leçon pour nga xam ni ñoo ñuy wax si karamba lu bon xamaluñ dara karamba. dañ si jóg rek pour yàq deru karamba. parce que wax nañ seen biir wax ñu ne xaalis bi may yor dama koo àbbu. est-ce ma. wax nañ seen biir ñu ne xaalis bi ma yor dama koy abbu li nga li ma la won si ay millions boo calculé ñaata millions la. bëri na. amul ku ko dàq Sénégal fii si pour foot parce que maa taxaw ma ni Karamba mooy le roi du ballon mënuma dara su ma nit di laaj coupon du duma la ko jox parce que gis nga ni may joué di gagné noonu lay joué di perte. kon des fois nga perte ay millions tamit. dégg man joué ma ay millions. bokkuma ak ñoom di teg ay millions million man man joué ma ay millions. match dama siy teg 10 000 kese jàpp si ay millions parce que ni may jëlee équipe la de mën naa jël ay 17 équipes 15 20 yi ma jox leen gañ yi xool match dama koy gagné mu fay ma ay millions te su may jàpp duma ma li garab mu garab su may jàpp duma ma jàppandoo benn ticket damay bëgg jàpp ay ñett ñeent millions yu bari yi gars di wax 7 ticket laa jàppandoo samedi 4 coupons laa jàpp muy 9 millions samedi 9 million laa jàpp si dimanche bi nga gars ni si la ñuy tëj saison bi saison bi nga xam ni moom la gars yi waxoon moom la ñuy finaaloo ma dàq si million millions 56 millions 300 xaw ma lan moom laa jël boole ko ak 9 millions yee loolu moo waral mu jox ma non non 56 millions xaw lan bi ma ko calculé samedi ak dimaas bi mooy xaalis boobu ma jël noonu di ko wàññi moom laa jël di ko wàññi voilà. ay ñaanal ko comprendre nga karamba ñaanal ko ku dul tamit su ko mënee ñaanal mu ñaanal ko parce que karamba warul toog sax di xaar parce que daawul xaar karamba karamba daawul toog di xaar ah gëdd gëdd meelu xaalis gëddëm gëdd kese cër kese meelu xaalis du xaalis li ma la woon fii ay millions te sama kër su ma xëyee malaat bu ma laal laa di laaj su ma duggee sama kër tourné bëgguma un million faj kese sama kër tourné bëgguma un million su ma duggee sama kër di faj yàlla may na ma xam-xam boobu ñaata gaal ñaata gaal laa yor ñaata équipe football ak yeneen yeneen yi may liggéey samay business su bopp kon maanaam affaire bi du xaalis yëg-yëg la yëg-yëg la ku ci nekk Sénégal ak foo man post boo manti nekk ak lépp looy man bi xam wala président yëg ko wala benn affaire parce que ñun loolu la ñuy rêvé. mais comme mën naa fi mu toll nii kon mën nañ jàpp Sénégal seen xel mën naa dal parce que état bi yëg-yëg bu doon laajte jox nañ la ko parce que tey ministre bu la woowee président wala bëgg la jox jet privé pour nga dem Qatar kon Sénégal fi mu toll nii seen xel yi war na dal. moom man moom man man sama liggéeyu football du ay dem ñàkk dem. Mhm. xam nga tey boo fu mu toll nii boo doon liggéey geste bu ndaw boo def rek. dinañ xam ni karambaakat dugal na loxoom est-ce que dégg nga fi may waxee sooy duggoo sa loxo di duggoo sa loxo ba mu yàgg nii sa génn ba ñëpp da nga waaw ba ñëpp ni non déglu ma sa loxo di duggoo sa loxo di duggoo sa loxo ba coow li bari coow laa ngi bari ñëpp naan coupe du monde coupe du monde ñëpp ma def nii sama loxo non ma def nii sama loxo bàyyi leen ñu essayé leen ñam leen ñam nañ leen bu doon benn bal sax waroon nañ ko mën a yi tamit. lii ballon bi lii gis nga ko lii mu àndal nii. yëkkatil bu la neexee ah, yëkkatil. gis nga dugg si Qatar gis nga yëpp xamal la. deret mook lii ñoo composé. li de li deetu man lépp laay rey damay rey bëy bu ñuul damay rey bëy bu xonq damay tuur soow damay tuur sàngara lépp lay def comme suppu kànja non non man aw ma man aw ma sens interdit si liggéey moo tax bañu ma ku ma xas sëriñ bii day lii est-ce du sàngara la liggéey man lépp laay liggéeyee xaatim njànguma ko lu ma neex laa si bind ku si nekk ak liggéey bi la tax a jóg bal bi man maa ko nàndal parce que comme wàllu xbet bii ngay gis nii équipe yi des fois fan yi boo gisee ma siy dàq des fois damay jël a équipe teg sama xaalis liggéey si match yi parce que dama ni man li ma daan toog di liggéeyal ay équipe yi ñu ma bëgg maa yab sax léegi damay jël sama xaalis teg ko si exibet di concentré wu di ci liggéey waaw bi ma ko commencé ba léegi ay millions laa jàpp gis nga bal bi moo tax dama taf may jaral bal bii rek rayalagum naa ko ñaari gëléem mhm. bal bi tëralagum naa ko ñaari gëléem li ma ko tërala si ay xarak ay bëy mënu ñi te am na yu toogaat fee di ko xaar moom lii ñoo composé kon bal bi li nga gis ni sëriñ yi nga xamante yaa ngi leen di dégg Dakar kenn ku ne neen am na jinne donc ay jinne karamba ay jinne karamba ni nu déggale karamba laa bëggoon xam loolu lan la ak karamba buy faj benn sachet ndox lay yor mais sachet ndox bi fa la affaire bi ne bu la ko sottee da ngay sentir bi ni mu amee lu yeewu ci moom day nandal sachet ndox bi wala sachet ndox bi ci la jinne di ne wala lan la karamba question garaaw garaawul de si yow question boobu daa ñàkk fayda si man léegi da nga may laaj nan la question bi ñàkk fayda si yow ñoom dañoo fàtte ni man taaliba sëñ fàllu laa te dama taxaw man leen nga sëñ fàllu bi gën a ndaw moo yëngal jamono bi te kenn mënu si dara yàlla kese moo si man dara ngay jinne mënoo si dara ngay dëmm mënoo si dara ngay sëriñ mënoo si dara yàlla kese moo si man dara man taaliba sëñ fàllu laa sama sëriñ lu mu la musaana wax mu barkeel sëñ fàllu sëñ fàllu da daan tubba suuf ne lii ak lii ne demal suuf si kese bu ko jëlee sànni la ko nela la demal wér nga dem naar bàyyil góom gis nañ ma dama koy faje man damaa koy faje senegal ndox moomu man du ndox mu may jënd du ndox moo xamante ni tey ay usine ñoo koy dem ba ñoo ma koy indil sama rakk bi moo koy fay màgget amul bu may xëy idali yàgg yàgg idali yàgg nga ñëw sama kër ñu départ ñu xëyandoo suñu kër xam nga li ma la wax ndox yi du lu ma siy tari du ma tari benn saa du ma def dara te bis dina jot dinaa leen invité yéen seeni paquetu ndox ma sotti ndox malaat jàpp si jinne tey dégg naa boo yàqatu der yooyu ñu ne karamba suuroom bi ay kaani la xanaa xamoo yooyu mooy waral xanaa xamoo fan yi yëpp saison bi nga looloo waral may faja ay sàqet sama sàqetu kër bi di si jàpp ay jinne mbalit di si jàpp ay jinne di si jàpp dëmm fanee live bi lu ñu ma demande ñu ne ñu karamba bala ñoo xam ne aay nga suba meew lañ bëgg nga faje man leen ba suba te bi ma xëyee dama ko def déggoo li ma la maanaam man amul lu ma capable si faj micro yi sax nga si dindi micro ndax man naa si mën nga si génne ndax génne micro nii si jinne yi ah, waaw na na fekk non na fekk micro yi am jinne fu dara nekkul doo fa jële dara leer na ok ah boo bëggee xam boo bëggee fu jinne nekk ndax karamba dina ko fa jëlee wala karamba du ko fa jëlee en direct nii am na ñuy def live bu ma gisoon xale bu daanu léegi di xalangu te doonul trikaas doonul ku bëgg a teg karamba dil ma faj ko appel vidéo fi ma toog te doo dégg ma tari benn saar ñaata sëriñu courtier ñoo ma oo si kii bi mat Sénégal bii xam ñaa xam ne ñaata sëriñu courtier ñoo oo te pourtant amaana gars yi leen jël wala ay nit a leen fay xaalis rek fanee def naa ko live di ko kaas mais xama rek yooyu amul solo amul sens ku si nekk bàyyi la sa bopp rek jarumay tudd seeni tur voilà c'est que yii bëgguma ko di wax su ma koy wax après ñenn ñi day dinañ bëgg ñëw si man sax mais dañuy ragal. alors euh, Camara euh, sànq dañoo dégg. Mhm. yenn vidéo ngay wax ak waa Faramareen. Mhm. wax nga wax waa ne. na xool ñaata bii la bëgg si match bi nga dugal ko. waaw Waly sama xarit la moo tax damaa bëgg mu kontaan rek. léegi bu nee 3 bii la bëgg nag. Waly sama xarit la. en tout cas daal Waly Seck sama xarit la. mais bu nee 3 bii la dugal la 3 bii la bëgg. Waly lépp mën naa nekk. nga dugal 3 bii. ah du ma ne la ma dugal de mais lépp mën naa nekk. parce que man affaire football yi ni ko gars yi di waxee man xaw ma si yooyu ne man xaw ma ay ñaata bii nga war a am man yu gars yi xam man yooyu xaw ma ko de barki ah, yàlla maanaam góor différence dafa war a am man léegi gisoo gën nga maa sànq mhm. mu ne ma góor différence man noo xam luy góor différence man football xaw ma si dara football xaw ma si dara ah Karamba dama fu mu ne damaa bëgg maanaam xelu Sénégal yi daal mhm. léegi boo ñu mën wax match bi ñaata ñuy dóor est-ce que mën nga ñu wax ne gannaaw yàlla suñu borom. <laughs> mas ñu ko dinañ génn suñu pool. Mhm. ah man de du ma ni dinañ génn pool duñ génn pool. mais en tout cas match bii di ñëw daal décidé naa pour jàppale Sénégal. loolu mooy loolu mooy fulla gi loolu mooy fayda gi. Mhm. d'accord euh, am naa dernière question boo xamante ne bëgg naa la koo laaj. parce que euh, day xaw a difficile tey jii nit ki bu ñëwee yor ay bëtam rek di xool sa kër euh, du mën a xam ndax taal bi sëñ Fallou nga taal bi sëñ Touba wala taal bi Jésus. ñëpp a ngi fi seen photo dafa mel ni Karamba dafa dafa jox cër wala dafa gëm ñi nga xamante ne yàlla wàcce na leen fi ñoom ñëpp te amu ci xaaj ak seer waaw parce que man lépp si xeetu révélation bi may dox la rek mm-hmm. man sama révélation si àdduna loolu la boo gisee ñu yaakaar damaa reew wala kii damaa naqa deret non dama direct ni may waxee. photo Jésus bi lu ko waral. photo Jésus bi li li ko waral. Mm-hmm. niñ may décorer may ma photo sëñ Fallou noonu lañ ma ko décorer may ma ko. te biñ ma koy may ñaar lañ ma mayandoo si benn tàkk si benn ngoon lañ ma may ñaar kenn ki Dakar la jógee kenn ki mu ngi jógee si dëkku village yi ñu tombe sama kër net tombeek may faj ñu jox ma ko comme ñu ma joxe photo yi ma def ko comme ni ma def photo yi te li tax ma gën gën si sawar parce que àdduna bi foofu damay wone comme chrétien bi ak musulman bi benn lañ tey chrétien bi bu xewlee musulman bi moo fay jiitu musulman bu xewlee chrétien bi moo fay jiitu kon am naa droit ma yor photo Jésus sama saal ak photo Sëñ Fallou photo ñëpp def ko sama saal maanaam loolu laa si jublu lépp si révélation pour Sénégal nit ñi doon benn voilà parce que des fois da ngay dégg kii wax si chrétien bi dara wala nga dégg kiy wax si musulman bi dara yooyu warul am bañ yooyu di am moo tax may jàngale lii def photo Sëñ Fallou photo Jésus yëpp sama saal mhm. waaw te bu ma si xool damay kontaan. kii bu dee bëgg ngaa dégg dëgg bi ma ko defaree ba léegi kaan bu bees a gis nga ko bi ma ko liggéey bi ma ko liggéey ba tey dafa yëngal senegal moo kii moo waral coow li coow li coow li kii moo ko waral kajumba xam kajumba li deret sàngara kese lay naan ci mooy kajumba maanaam deret ak sàngara kese lay dunde lii ma yor nii te bu ko soxlaa dëgg day sab ku yor 600 nangam 1000 taalibe jinne yor lii nga naan kaan ndax jinne la. damay <laughs> lu garaaw nga jàkkaar lool nii. instant bi pouvoir baa ngi nii. kii maa ko lii xam nga tey man sëriñu xale laa dama saay saay kenn liggéeyalu ma gàllaaj yëpp maa koy liggéey maa koy defar sama bopp jël sama temps mu laaj dugg si àll ma dugg fa mu laaj fanaan ma fanaan fa. lépp pour noonu taxaw di ma xeex ak sëriñ ñi nga xam ne dañuy taxaw booy bi xale la de kaa leen ñu teelu a gor tànk yi booy bi eh, booy bi temps yi mu ngi wax de xaaruñ jekkal ko dóor ko misil dégg nga wax bi mm-hmm. waaw moo tax kii armu la te du armu xale armu luur la mm-hmm. kii bu doon bu doon nuñ koy waxee sax bu doon ay jamonoy jamonoy démb ay maam ñoo koy yor te maam bi koy yor boo ko gisee bala nga kaa gisaat yàlla xam. Mhm. Mhm. demoon seeti ka mu am lu mu wax ci blessure Sadio Mané na laata lii gént na jaan matt tànk donc jàpp na ni la blessure taxaw ni sénégalais yi Sadio dañ ko liggéey wala liggéey mais loolu moo nekk Sénégal loolu moo fi nekk loolu jarul laaj ba si mendi mii nii ñaata weer laa ko wax mat na trois mois xaw ma 4 mois man leen bala moo dem si kii bi na fexe mu ñëw mu sangatu. waxoon naa ko ñëpp seetaan nañ ko si mendi bi ma koy wax. léegi sénégalais la moo tax yooyu ñoom duñ koy bàyyi xel ñoom à chaque fois nuñ lay yàqale rek lañuy bàyyi xel loolu pour lan. non non waxoon naa leen ko ma leen. newoon naa leen bu sangatuwul lépp ak lépp si cadre mystique moo koy def. parce que tey dañuy nekk si poste yoo xam ne dañuy xëccoog seeni moroom seeni moroom dañuy am ay sëriñ tey boo fekkee ku mel ni karamba nga ni ko defaral ma lii pour ma mën a am lii nga yor sa xaalis dóor si taabul ji da lay liggéeyal ca nga xamul góor gu rafet ku koy jox xaalis kese la xam n'est-ce pas commerçant bi xamul jigéen bu rafet xaalis kese la soxla messi non du ma ni sénégalais yi du ma ni la sénégalais yi ñoo ko liggéey mais dama lay dama lay xamal ni comme comme ñoom seen post yi ñuy nekk di liggéey yi ñu nekk di moo xam équipe bu Sénégal bi moo xam équipe bi muy football Europe comprendre nga maanaam day amay xëccoo. d'accord Karam eh, moo fu mu nekkoon moom la moo la moo lan moo la wóor ne Salah doon doonu ko def ay affaire te Salah du nit ku naar la comprendre nga loolu yëpp gis ngeen ko si kii bi. kan. yow laaju ñàkk fayda bu ma ko laaj de waaye yow. d'accord euh, euh, Karamba waxtu bi euh, dab nañu ana yan kàddu ngay tàggatoo ak lan ngay dénk sénégalais yi. man li may tàggatoo mooy Karamba Karamba Sénégal Karamba dafa bëgg Sénégal kenn gënu maa bëgg senegal su ma bëggul woon Sénégal tey sama réew tey su ma neexee lu ma neex si ay million dama koy laaj million yaa ngi nii jag privé baa ngi nii man leen déedéet. man sama boo sama xam-xam bii fu ma toog damay liggéey parce que su ma jëlee jet privé dem ñu ne voilà daa bëggoon a dem su ma encaissé xaalis ñu ne ma voilà xaalis bee taxoon muy wax kon comme yëg nañ ma oo nañ ma président woote na yabal na fi ay ndaw ministre woote na te waxoon naa leen ko il faut appeler il faut appeler <laughs> il faut appeler koo seen baay Messi. Messi. li ma nar am gëm-gëm kam gëm-gëm bi doomu aadama yi di doxe nga xam ne doomu aadama yëpp kenn xamu si ban suur ngay dee seen gëm-gëm boobu ñuy doxee man moom laay doxe ak jinne àdduna yi ma àndal di ñaanal Sénégal pour yàlla may ko ndam. parce Sénégal ni ñuy doxee la war a bàyyi. suñ ko bàyyiwul nit dina bëgg a yéene pour ñaana Sénégal sax du ko ñaanal parce que lépp yàlla moo ko yor parce que da ngay préparer pour ñaana Sénégal de mais am na ñoo xam ne ñu ngi lay waaj pour nu la yóbboo vaar est nga fi may waxee tey mën nga waaj pour ñaanal Sénégal de mais am na ñoo xam ne pour nga Sénégal dafa bëri ñoom dañoo soxor am na ñoom lu ñu xaar yow nu la yóbboo vaar te yow yaa ngi xool noo mën a def ba Sénégal am ndam bu ko defee la ngay liggéey sax yow dootoo si sax sawar nañu maytu loolu loolu bu ñu koy def dañu yàq sénégalais yi boo ko def mu ngi mel ni nga jël vidéo mu ne sëñ bi laaj ma ñii ñaata match laay toog fii di ko liggéey foo nekk Saly Saly depuis 2018 depuis 2019 ba tey ku buñ teg Saly maa ko jël maa tey man maay seul mara bu dugg ndar jël fa ñetti coupe si benn saan ban sëriñ ko mun a def am coupe bi ñu tegoon maa ko jël maay seul mara boo xamante ni Sénégal un mois laa jël sept coupe déggoo le ma laax an sama téléphone déggoo sama in ma woon la fi in ma sama sama visa Dubaï bi laa lay won c'est que dama lay won équipe bi ma yor Dubaï laa lay wax xaral rek ma won la fii pour sénégalais yi seetaan live bi nag sama gars yi bu daggee ngeen duggaat dama koy won mu xool en direct par ñoo xam ne sénégalais yi naan ay karambaa daa bëgg a lii karamba dafa tal yooyu karamba talul yooyu karamba talul loolu dama lay won rek yor ngeen seeni bët seetaanal xoola ñoo may vocal nii sax dégg nga. ñii ñan la. waa Dubaay. déglul déglul déglul. dama lay wax rek déglul waa Dubaay li ñuy wax déglul déglul déglul. léegi gars yi ñu ma bëgg a football loo match bii di ñëw léegi waa Dubaay gis nga niñ may vocal. ay quatre heures yooyu rek quatre heures. déglu leen vocal déglu déglu foog ngeen déglu vocal bi parce que li amal na Sénégal njariñ da ngeen di noppi ba ma dagg sama li may def. voilà lan la wax ci vocal bi déglul. nekk aéroport quinze heures quinze lay woon rek pour nga xam ne comme sénégalais yow Karamba mu ngi si yeneen link lii la la yéen a koy gisal seen bopp. lu ne fàng la. non non lii la la. lii la la. ah. pour la. zoom ko nu mu la neexee mu ngi nii. waaw gis nga ko si football. le 16 11 sama équipe yi ma yor fu mu toll nii ñoom ñoom instant bi équipe yooyu yëpp maa leen yóbbu. Mhm. équipe yëpp dama leen woon ñu gis su ma sama réew xamul réew jàmbur yi xam nañ ma xoola li assurance la gis nga ko ñoom ñooy wootee noonu gis nga ko assurance yaa ngi koy gis. Mhm. gis nga ko mhm. Dubaay. dégg nga audio bi comme ñoom li ñuy wax comme maanaam dama bëgg comme yenn sénégalais yi ñu comprendre li ma lay wax gis nga ko leer na ah mu ngi nii déggaat nga audio bi joxaat ko gaa yi ñu dégg ko. Sénégal kañ lay football. vendredi. 13h. vendredi la war a football jeudi foofu jege na jege na jege na jege na kat kii sax foofu jege na Qatar sax. waaye Qatar kay parce que lii nii boo gisee lii heure bi waru moon a fekk fii parce que heure bi waru a fekk fii dama nekkoon si ay affaire yu ma doon lijjanti rek comprendre nga mais yii heure bi waru a fekk fii demoon naa si football numéro baa ngi nii dama leen koy won parce que tam ñu ne ay dil senegale sénégalais bi dafa soxor li numéro fal la plus 971 numéro fal la Dubaay démb rek waaye man ko ma di wax c'est que bëgg kam sénégalais yi ñu yeewu Karamba affaire bi du ay bëgg a dem Dubaï astafurla ay bëgg a ay Qatar gars yi di wax soxor yi ku nekk génn fii di wax àdduna bi moo bëri ñoo xamante ni dañoo soxor nañ bàyyi soxorante bi gars yi ñu ngi ma tegal ay visa yu visa yu visa yëpp pour soxla ma dëkku Europe te man lépp maa ngi ko bàyyi ñëw toog fii ndax bëgg Sénégal comprendre nga parce que su ma jógee fii ñaata fan ñaata sénégalais ñooy jaaxle ñaata sénégalais ñooy jaaxle ñaata sénégalais laa war a faj teel loolu voilà loolu laa amoon li may wax léegi après loolu sénégalais yi nañ ci waxtaan li ma lay wax nii léegi sénégalais yi loolu nañ ci waxtaan yéen yéen a ko gisal seen bopp parce que information ngeen doon wut may naa leen information gis ngeen waa Dubaay yi nee nañ dañoo bëgg jeudi ma ñëw ban heure ay une heure xaw ma treize heures xaw ma ban heure lañ wax gis ngeen visa bi gis ngeen lépp tëfaleen na ay million yu million lañ may fay mais sama réew moo ma gënal lépp. doo dem Dubaï. sama réew man fu mu déggoo fu ma mënti nekk lii contrant la boo xamante ni bokkul ak kam affaire u yëfu man naa toog nii xëy journée ma ma liggéey la ndoog si match ma liggéey la ndoog quatre équipes wala cinq fu mu mënti nekk bopp bi mooy liggéey buñ ma ketal de loolu dafa ñaaw de bu ma kenn ketal kon doonatuma sénégalais bugguma ko de bu ma kenn ketal xool leen fu ñu war dugal xaalis ñu wax ma ko ma jël sama xaalis ma def ko fa bu ma kenn ketal képp ku ketoon képp ku ketoon ngir karamba ngir yàlla delloo nañ la ko ngir jëmmi Serigne Fallou parce que li ñuy def xaalis taxul ñu def ko li ñuy def du ay billet avion pour tukki moo tax ñu def ko loolu kese laa amoon li may jàllale di jéggalu sénégalais yi ñi nga xamante ne tey xamuñu amaana mën nañ ma mere maa ngi leen di jéggalu di jéggalu kilifa yi di nuyu xaw ma nu koy waxee sax ministre bi xam nga Yankhoba Dia xam nga Yankhoba Diatara xam nga di leen nuyu di leen ñaanal di leen di leen wax yàlla na leen yàlla may ndam di félicité Aline Cissé ne ko bu mu découragé zéer yi tamit buñ découragé parce que àdduna fii yàlla rek moo fi nekk ñu bañ a jël seen lépp gars yi di jaxas seen bopp yi ñu jël lépp bañ ko wéer si cadre mystique damay jàll la waale message boobu kam comme zéer yi ñu bañ a jël maa ngi leen di ñaanal bu baax mais buñ jël seen bopp yëpp ñu def ko si cadre mystique te li ma la wax xamul tax may may jàllale message boobu tey boo xooleen booykat yi nga dajale sëriñ yi nekk senegal Mali Guinée ñëpp nga jël leen yóbbu leen coupe du monde mënuñu laa indil ko kon lan moo la ko mën a indil tey joueurs yi dañoo war a mën a football tey sëriñ yi dañuy topp sa ginnaaw rek di la def nii di la mottali. bu ñu gisee dans une kii di jaayante di xool nuñ mën a def ba bali dugg si mbaali loolu laa leen di encouragé sama sama gars yi équipe nationale bu Sénégal Karamba mu ngi seen ginnaaw bu leen tiit dara bu laajee bakken bi joxe leen bakken bi su laajee bakken bi joxe leen bakken bi xam naa ne ay gaynde ngeen que ay doomu gaynde ngeen billaay wallaay tallaay xam naa ne ay gaynde ngeen ay gaynde ngeen billaay wallaay leen Sénégal laaj da ngeen koy jëli man Karamba maa ngi seen ginnaaw bu leen tiit bu leen ragal dara bu leen ragal dara te li ma def nii képp koo xamante ni tey ñu yaakaar nañ la Sénégal ñaan naa la nga génn nga jàppale Sénégal kam karamba lañ laaj xaalis jëlu jot privé demul na ñëpp génn jàppale Sénégal yàlla may ko ndam voilà téeméer yamb boo ko sama day non yambu nañ tëj saal bi léegi ma oo sama yambu yi fi ñëwoon eh, eh, non nañ tëj saal bi ma oo sama yambu